mooy l'avenir pour ces pour ces marchands. xam nga avenir yi mooy lan euh, man amoon naa projet c'est-à-dire il faut que il ñoom ñu mën a jaay amoon naa projet man. waaw ah. pour tabax marché marché Grand Yoff R plus 3 avec un promoteur mais man ak suma waajur nekkoon si marché bi déggoowuñ parce que ñoom li ñu bëggoon mooy ma bàyyi la ñu tabaxoo ko seen bopp man dama jàpp ne bu ma tabaxee marché ambulant bi nekk si mbedd mi war na am cantine ci biir marché bi. te lu fay 3 millions mënuñu fay 4 millions mënuñu fay cinq millions. ñaata nga leen koy joxe. voilà ma leen man li ma soxal mooy promoteur boo xam ne day ñëw tabax marché bi jël benn quota cantine jox ko ambulant yi ñuy fay minimum 25000 40000 pendant 5 ans xale bi loolu la mën fay. ñuy fay vingt cinq mille cinq mille trente mille ba maximum cinquante mille pendant cinq ans. Hmm. ñu moom seen cantine parce boo boo boo jëlee boo bàyyi ñu tabax cantine noonu rek te amoo si mainmise bu subaa xale bi du ko jox si cantine bi. Hmm. borom barke moo koy jënd ñëw luye xale bi. Hmm. bu tabaxee marché Arafat bële def ay cantine ci kaw marché bi bëriwul xaw ma quatre xaw ma soixante-dix cantines mais jël naa vingt cantines jox ko jeunes yi nga xam ne dañu doon liggéey te amuñu cantine ci biir ñu koy fay entre vingt-cinq mille ba cinquante mille par mois pendant quatre ans cinq ans mais loolu. tey vingt jeunes yoo xam ne dañ doon loué depuis quinze ans amee cinquante ñu koy fay nànk nànk. mais loolu. su ma amee kum mais après jotuñu déggoo man ak man ak sama waajur yi nekk semence bi ak ah, ñu ay problème après bon voilà coow lu jóg après. d'accord pare woon nañ ko avancé après bi ñu bu ñu bu ñu bu ñu bi ñu affecté le sous Mar après le préfet bi ñëw léegi euh, après bon procédure bi yéex pareegul ba léegi moo tax mais su ko na kon avancé nañ mais coow li woowu moo taxoon ñu toog mais loolu moo nekkoon tamit loolu laa am comme proposition man ba mu leen defal. pour ñenn ñi bàyyi waaw mais loolu déjà jubóogu leen. non non euh, horizon temporel bi c'est c'est c'est c'est pas déterminé. des phares tournantes là. voilà en attendant. waaw en attendant ce sont des jeunes. qui sont dans le commerce. Mm-hmm. il faut que ñu jaay. Mm-hmm. Euh, ban solution. bu bu bu bu viable nga leen di proposer. des foires jusqu'à ce que des foires tournantes euh, rek. des foires tournantes vous pensez que foire tournante dina dox. si au niveau de Grand Yoff. waaw fekkee ne kenn lalul fenn à part foire bi kese ñëpp leen di fekk. yan da nga da nga ciblé déjà des des des espaces. am na espace mais ñoo aussi nañu xool espace yu leen yu ñu ciblé ñu koy def par 15 jours en attendant mais man vraiment mënu ma jël responsabilité engagement wu ne naa ne fu ñu nekk parce que mënu ma ko awma ko. voilà amul fu mais toujours prenant pour ñu waxtaan ñu ay solution wax état aussi mu accompagne mu mën parce que li am solo rek mooy ñu tabax espace yoo xam ne fay nekk mais mbedd mi moom vraiment ak ak trottoir yi vraiment du pour jaay je regrette bon neexul metti na mais dama leen di ñaan rek <coughs> ñu ànd ak man dimbale ma ba li nga xam ne moom la ñu ma dénk ci dëkk bi li ma war def ma def ko ma leen di jéggalu bu baax vraiment c'est c'est c'est choquant ñoo xam nañ sax dama koy def malgré moi mais aw ma aw ma pexe. amuloo amuloo solution. non solution rek mooy toujours xam nga solution du ñàkk waxtaan la mais pour le moment li ma gis mooy ñu trouver des des des espaces au niveau de la commune def des foires tournantes dem ay en attendant ñu xool lan lay joxe mais xam nga ni foofu meloon soxna si jaaduwul xam nga loolu sax c'est très compliqué foofu ni meloon te boo te te boo amoon film avant nga xool su fekkoon ne boo leen tegee. dañuy bàyyi kenn du lal mais boo tegee kenn kenn mu ñëw teg si kanamam su ko waxee xam nu koy wax da ngay jaay may jaay mënuloo ma dara kenn ñëw teg si kanamam après mu feesaat est-ce dañu war a bàyyiloo mu continuer wala dañu war a fexe xool nu ñu organiser suñu dëkk bi ba ki war a dox dox ki war a dawal oto oto bi daw si tali bi ki war a jaay am feneen fi mu jaay.